mécanisation bi laa mécanisation et tout man ni may njëkk a def mooy créer marché damay fexe ba école Sénégal yi ma jox leen lekk xale yi dana leen jox ndékki dana leen jox añ te loolu dafa am lu tax ma koy def xale yi dañu leen jox añ dana leen jox ndékki parce que d'abord il faut partir par l'économie de la connaissance xam-xam te civilité ci école lañ koy jàngee civisme ci école lañ koy jàngee xam ki nga doon bëgg sa bopp bëgg sa réew ci xam-xam da nga koy tabax ci xale yi bu ñuy doggonee ñun suñu école yi fa nga xam ne fa ngay jàngee xam-xam Amérique boo fa tëddee seen douze sax mën nga fa tëdd. Hmm. yow leer na la suñu école élémentaire yi Dakar sax moo tane mais dëkk école yoo gëm ci biir réew mi fii boo fa demee xale yi wanag sax mënuñu faa dem. Hmm. ko xale bi yaa ngi koy déstabiliser balaa moo nekk mag. loolu ma ko bëgg a tas ci biir réew mi sax mënu may njëkk def révolutionner suñu educational system bi par école yu nekk ci réew mi yépp ma réfectionné leen pourquoi je vais créer de l'emploi mais balaa ma ñëw ci foofu bu njëkk mooy baykat bi xale yi dama bëgg ñoom ñëpp ñuy lekk suñu lekk mag ñi fonde cere laax mbaxal saalum mbaxalu saalum yoo xam mag ñi dañ ko daan lekk ak ñeleñ yooyu la ñuy lekk. mbaxalu saalum bu ñu ko lekkee dañuy nelaw. waaw dañu ko lekk kon ñu may leen si tuuti dañuy def tuuti pour pas leen tuuti jox leen soow. bu fekkee leen jox teg ci njëriñ soow bu ko defee boo mel dañuy nelaw wax nga dëgg kon nañ dindi baaxal saalum nañuy def baaxal saalum dafa diis waaw nañ def yeneen yi quoi moo gën ñeleng baax na mais ñeleng moo gën a diis ah ah ñeleng aussi saalum ñeleng moom bàyyi ko ci kër gi añ lañ koy jox mais ndekki ñu def fondé laax waaw yooyu baax na caagri